jafe-jafe yi nga xamante ni askan waa Tëngéej ñu ngi koy euh, jànkonteel dommage yi nga xamante ni euh, train express régional teg na leen ko pétition bi ñu lancé fan yi ak tamit seen marche bi ñu bëgg a amal ci fan yi lee daal di ñëw euh, problème wu emploi des jeunes daa ñu ko waxtaanee ak situation wu malade mentaux yi ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel nga xamante ni am na centre bu ñuy wax centre delloosi nekk foofu lay ci Rufisque di leen taxaw daañu ko suñu invité bi euh, di Samba Diop ñu lay nuyu di la dalal jàmm. Ah, soxna si maa ngi lay fay. soxna si maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal. xanaa ndekkee goo. <laughs> Euh, ah, damaa woor. <laughs> Ah, ma foog Baye Fall du woor. <laughs> non man moom damay woor. ayca waaw mhm. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal. Mhm. di nuyu waa Rufisque yëpp. waaw parce que tey mu fi ñëwee tey kàddu tëngeej daal moom moo indi fii. Mhm. waaw. kàddu Tëngéej association la mouvement la lan la. waaw moom euh, association la quoi. Mhm. waaw benn mbooloo la boo xamante ne mooy euh, waa Rufisque yëpp ñoo booloo. Mhm. ànd jox ma seen kàddu pour ma ñëw fii waxal leen li nga xamante ne moo leen métti yëpp si dëgg bi. Mhm. mais affaire bi nga ne association la. naka la ñëwee kàddu Tëngéej ak kañ ngeen ko taxawal euh, nga ne askan waa Tëngéej ñoo la jiital ci naka. waaw parce que ñun dañu ay jeunes yoo xamante ne Rufisque lañu dëkk. Mhm. waaw parce que aussi tamit man maa ngi juddu le treize décembre mille neuf cent quatre-vingt-quatre. Mhm. depuis boobu léegi ñun bi ñu juddoo dañu gis ne Rufisque amul dara lu changé. Mhm. dañu gis ne Rufisque ba léegi changé wul xar kanam. léegi ñoom nag ñun bi ñu toogee ñuy liggéey si loolu. di dox si dëkk bi di def ay caméra di def ay micro-trottoir di wax ñi nga xam ne ñoo ko si population si population bi. parfois ñuy am ah, parfois ñuy am ay. ñi ñoo xamante ne dañuy in dañuy intercepté dañuy wax Rufisque li fa doxul yëpp te ñun mm. tamit bi ñu juddoo ba léegi gisuñu Rufisque am na lu dara lu fa changé mm-hmm. Mm-hmm. mais mais naka la euh, kii lu ngeen gis ne euh, coppite amul Rufisque maanaam euh, kàddu tëngeej ñi ko <coughs> ŋànk ay ndaw lañu ay mag lañu exactement lan moo doon lan mooy objectif bi waaw objectif bi mooy parce que ñun dañu gis ne bi ñu dëkkee Rufisque ba léegi mm-hmm. Rufisque ñu meloon noonu la mel waaw ngeen bëgg a indi coppite waaw te dafa war a am sax ci coppite. Mhm. parce que depuis mille neuf cent soixante ba léegi Rufisque mënul changer loolu bu ñu la ko sax yow waroo ko mën a gëm. Mhm. mille neuf cent soixante ba léegi ñun bi ñu juddoo ba léegi mosuñu gis Rufisque loo xamante ne defar nañ ko fa mu baax. Mhm. loo xamante ne population bi yëpp dina si gis boppam. franchement quoi. mais mais mais maanaam ñi nekk ci biir association bi ay ndaw lañu. wala ay mag lañu waaw am na ay ndaw am jeune am na ay pa am na xale am na lépp daal. kañ ah. naka kañ ngeen ko taxawal. waaw bi ñu ko taxawalee nag euh, yàgg na trop. Mhm. mais. Euh, ban at euh, ay deux mille dix huit yooyu. Mhm, ngeen ko taxaw si dox waaw ñoo si dox parce que ñun bi ñu duggee si politique yàggul parce que di ñu gisee dëkk bi doxee ko moo tax sax ñu dugg si. kon yéen da di politique. non mais dañu ñëw dañu nekk si benn dëkk boo xamante ne. Mhm. gisuñu si comme politique li mu li mu li mu am turu tëngeej dëgg dëgg dëgg ñun mm-hmm. gisuñu sañu bopp mm-hmm. te léegi bu fekkee ne da nga bëgg a kaasal dëkk il faut nga dem jege population il faut nga jege euh, politiciens yi quoi. Mhm. pour nga mën a kaas te aussi tamit ñoom ñoo ñu mën a defal li nga xamante ne mooy suñu dëkk. waaw parce que si ñoom la ñu yaakaar. maanaam yéen kese kaddu Tëngéej mënoo leen changer Tëngéej. waaw ñun dañ si au population yi yëpp yëpp yëpp ak autorité yi tout pour ñu jàppale ñu si. mais lan moo tax ngeen dem di ànd ak politiciens yi. non ànduñu si benn politicien mais aussi tamit tëjuñu suñuy bunt pour ñu ñëw jàppale ñu. Mhm. waaw ah, parce que nit ki bu fekkee da bëgg a defal sa dëkk. Mhm. da ngay ibbi bunte yi oo ñëpp. kon yéen kan ngeen di euh, soutenir. politiquement. non instant bi ñu toll nii moom bu dee politique ñun moom Rufisque mooy sañu parti. Hmm. waaw mais mais est-ce que defoo leen nii genre mouvement bu ñëwee ngeen ut si ku ngeen bootu. Hmm, ainsi de moom ñun moom sañu kàddu tënge. Mhm. Rufisque mooy sañu leader. Mhm. franchement ñun lu Rufisque changé ñun moom mooy sañu. moom mooy suñu tànk quoi. est-ce que taxawu leen pour xeex maire maire bu Rufisque wala ainsi de suite ak élection yi euh, locales yi ñëw. no loolu moom yeggaguñ si mais ñun instant bi ñu toll nii sañu problème yëpp mooy Rufisque la fa nekk te jaaduwul daal mmh. mooy sañu problème. Mmh. Mmh. Euh, seen seen association bi euh, naka lay fonctionner exactement. waaw ñun ba chaque jour que jëfee dañuy génn dañuy dox si quartier yi. parce que dañuy dem di dugg si quartier yi di xool canalisation ndax da nga xool ndax tali yi aussi tamit ndax moo ngi dox aussi tamit ndax hôpital yi nga xamante ne moo ngi nekk si biir gox bi léegi ñun bi nekkee si dëkk bi di def démarche yooyu yëpp ñoo xam ne Rufisque depuis cent 1960 ba léegi dara doxo fa amul dara loo xamante ne aussi tamit changé na ko ñu commencé def sañu pétition di àndax waa dëkk bi di leen wax. sañu maanaam yéen yéen yan ak parce que dinañ ñëw après si pétition beg yooyu. Hmm. yéen yan activité ngeen di def kàddu Tëngéej lan mooy ay activité day def ay day faral di def ay marche wala ay day def ay campagne de sensibilisation lan mhm. mooy seeni activité waa merci ñun pour pour soppi mhm, mhm. ñun dañuy def ay sensibilisation même bi euh, pandémie bi commencé ñun ñoo ngi si woon ñun jëloon sañu initiative di dem jënd sañuy tissu di defar ay masques di ko may population bi comprendre nga bu euh, dañuy jàpp dañuy dugg si koñ yi aussi tamit di def ay set setal waaw di def ay reboisement loolu yëpp dañ koy def Rufisque. ko ngeen koy def à Rufisque. set mhm. setal di ngeen koy parce que gis nañ ni euh, dafa salte côté mhm. boobu lan la ci kàddu Tëngéej di def. waaw pour mu set. waaw mais parce que tey boo gisee ne Tëngéej salte gi mu salte noonu mhm. loolu yëpp euh, dafay dafay doon loo xamante ne parfois aussi tamit ci euh, population bi ci ci lañ bokk. parce que aussi tamit gis nga manque de surveillance bi da ciy am. parce que. dëkk boo si nekkee il faut mu am euh, surveillance mais léegi ñun bu ñu xoolee ne sax Rufisque instant bi ñu toll nii moo ngi avancé un peu parce que bi ICG ñëwee ak DST. Mhm. def na léegi gisatuñ fa mbalit quoi. Mhm. mais problème bi mooy maanaam ñun suñu problème euh, mooy problème dëkk bi daal li mu mel moo ñu neexul. Mhm. sur tous les côtés. mais yéen fan ngeen di jëlee ay koppar pour mën a def seeni activité no ñun suñuy activité moom comme ñun ñii rek. mooy benn association la boo xamante ne dañ si dem ak détermination bu doy sëkk. képp ku nekk. mais activité lu mu tuuti tuuti kay di ngeen soxla koppar pour def ko. waaw mais ñun ñoo koy contribuer. man nu ngeen koy contribuer bu ma amee cinq mille dañuy liggéey. waaw bu ma amee cinq mille damay ñëw teg. bu keneen amee dix mille dafay ñëw teg. bu keneen am mille franc dañuy ñëw teg. Mhm. en plus aussi dañuy dugg si biir dëkk bi. Mhm. di waxaax sañu papa yi di waxaax ñu dëkk si dëkk bi ñoom ñëpp ñu jàpp suñu liggéey liggéey mu jeex. Hmm. Euh, waa si yaatal kon de duñu fi jógee kon naa ne duñu fi jógee boo xefee moom <laughs> xam naa bu korité bii di ñëw <laughs> lañ fiy jógee quoi. parce ah. que tëngeej moom. waaw bu ñuy wax jafe-jafe rek. fa la fekkee baax mais jafe yoo xamante ni vraiment euh, bëgg ngeen autorité yi taxaw si. non ñun tëngeej sëñ moom mooy li ma lay wax rek. Mhm. parce que bu fekkee jafe-jafe la rek. waaw tëngeej moom dañ ko war a tuddee sax dëkku jafe-jafe. mais faram-fàcce ko tamit. waaw parce que tëngeej mooy ville boo xamante ne mooy sànq maa la ko wax ne la depuis 1960 ba léegi. Mhm. mosuñu gis Rufisque luñ fa inauguré. maanaam inauguré wuñ dara Rufisque. waaw tali yi ni mu meloon bi ñu juddoo noonu la mel. hôpital yi ni mu meloon. Hmm. noonu la mel. Hmm. canalisation yi la même chose bi ñu juddoo ba léegi noonu lañ ko fekkee waaw muy lu ñu metti nag. Hmm. parce que nit kuy dund da ngay def yëfi nit kuy dund. parce que ñun dañu gis ne Rufisque boo xoolee Rufisque yëpp amul tali bu baax. tey bu fekkee da nga war a évacuer sax am malade pour war ko mën a yóbbu hôpital am problème. Mhm. avant muy avant malade bi di yegg da ngay am problème. maanaam tali yu beneen affaire la ay ay fausse moo fa nekk du ay cas de kamba ay fausse moo nekk si tali tout tali yëpp ah. Mhm. waaw. ak lan. am ay canalisation yoo xamante ne kenn xamul lu muy niroo. dëkk bi mhm. ñëpp dañuy jooy bu nawet ñëwee parce que inondation yi. waaw inondation daf ñuy sonal parce que ñoom dañuy basé wu si ville bi de Toro. mais te lépp ñoom dañuy fàtte population bi. boo tey boo ñëwee Tëngéej population bi yëpp dañuy jooy bu nawet ñëwee kenn du am jàmm ñun ñi dañuy dem si biir kër yi di leen jàppale pour ñun ñu évacuer ndox mi. waaw te pourtant canal bu mag moo ngi fa jege ñu. ñu waroon ñu mën a jàppale ñu defaroon ñu ay canalisation mais dañoo xool ne loolu yëpp dañuy négliger defaroon ñu ko. mu nekk problème boo xamante ne aussi tamit daf ñuy sonal waaw. marché yi. marché yi moom kenn waxatu ko parce que euh, da ngay gis marché Rufisque. Mm-hmm. bu nekkoon un hectare yaa ngi dégg. Hmm. marché bu nekk un hectare. mais si biir hectare si biir un hectare bi yëpp dañ fay jaay ndugg am naa ay écoles yu nekk si biir marché bi. Hmm. na ay hôpital yu nekk si biir marché bi. bu njëkkoon da ngay dégg ñu ne liir sax bu juddoo la. Hmm. dañuy njëkk a nodd sa nopp. wala nga dem église. mais léegi yow bu fekkee ne da juddoo Rufisque. si hôpital bi nekk si marché bi. ci li ngay njëkk dégg mooy. <laughs> promotion promotion promotion <laughs> yaa ngi dégg hmm. promotion promotion promotion hmm. kii ñëw ne tisi tisi tisi xam nga marché boo xamante ne daal yaay booy lu waay neex def hmm. tey yow da ngay am sa oto war a dem si hôpital bi doo mën a dugg ndax ay commerçant yoo xamante ne si diggu tali bi la ñuy jaayee yow élève bi nga xamante ne dafay jàng di jàng maître bi di ko poser question du xam li muy wax ndax ay musique musique yoo xamante ne dañ ko def si booru école bi kaay leen jënd ñëw leen promotion promotion xam nga mm. loolu bokkul ak jàng mm-hmm. bu lee dañuy waxtaan rek parce que bu fekkee ne ñun dañu bëgg defaral sañuy doom bëgg defaral sañuy rakk mm-hmm. bëgg defaral élèves yi ñu am niveau il faut école école ñu sori ko ak jaay yooyu ngay dégg noonu mm-hmm. parce que ñun man maa ngi jàngi Ibra Seck mais ñun bi ñuy jàng dañuy toog di dégg ay promotion promotion xam nga ab ab dëkk boo xamante ne daal yow fu la neex la toog lal. Mm. fu la neex toog total. léegi TER bi tamit bu mu ñëwee andil na leen ay ay ay jafe-jafe train express régional euh, jafe-jafe yooyu est-ce que mën nga si ñëwaat est-ce que am na amélioration ci diggante bi. waaw parce que ñun gisuñu si amélioration. la parce que bi terre bi ñëwee indi woon na ay jafe-jafe. indi woon na ay jafe-jafe lan lan la exactement. jafe-jafe yooyu travaux yi. waaw travaux yi bi ñu koy tàmbali. Mhm. ñun dañu ñun dañu ñëwoon ñun euh, kàddu tënge defoon nañ fa ay marche. Mhm. ba ñu indi ñu ay gros bras ay nervi daax ñu. waaw ba euh, ñu indi ñu ay nervi parce que boobu ñoo ngi doon dëkk ñoo ñoo ngi doon ñun sañuy yoon. ak sañuy passerelle. Mhm. mais bu ñun bi ñu ñëwee di recommander loolu lijjantiwuñu dañu boole ay gros bras ñu foofu. Mhm. waaw dàqañu ñu ñu ay xeer gaañ si ñun ñu bari. waaw depuis boobu ba léegi après waxatuñu si mais mais maanaam terre bi lan la euh, travaux wu bi lan la yàqal waa Rufisque. dafa bari impact yi mais nga expliquer ko ñu xam. parce que yow boo gisee terre bi. waaw lu ko jëlee Rufisque. Mhm. boo Bargny Rufisque amul dara luñ si bénéfice boo koy xool da ngay gis ñaari pont moo am si longueur boobu noonu rek te longueur bi yëpp boo koy xool war na mën a mat ay deux kilomètres deux kilomètres boo xamante ne ñaari pont moo si am mu am ñaari pont ak benn yoon boo xamante ne moo nekk si ville bi. Mm-hmm. benn yoon boo xamante ne un mètre carré mm-hmm. benn genre souterrain la ñuy bil foofu. Mm-hmm. mu am beneen yoon boo moo xamante ne moo nekk gendal deuxième essence. yoon boo xamante ne oto ndaw yi fa la ñuy jaar. mu am beneen yoon boo xamante ne moo génnee juuti bi moo nekk si rond juuti bi. Mhm. léegi ñun ñu gis ne comme tey léegi bu fekkoon ne marché dafay tàkk yaay booy. Mhm. marché bu doon tàkk tey. Mhm. ñu toog ñu ne marché Tëngéej moo ngi tàkk. léegi quand bu ñu waree dem foofu def fay lakk gi bu fekkee ne yoon ñoom yoon boobu ñu ñu ibbil si juuti bi. dafa fat mais marché bi day tàkk ba di yàq. ba parce que benn yoon boobu la ñuy ibbil sañu yaay. buñ daan buñ daan dem marché ñu bëri dañ si daanu dañuy dammoo mm-hmm. yaa ngi dégg terre bi ñëw na fekk canalisation yi nga xamante ne ñun bi ñu juddoo ba léegi masuñu am inondation Rufisque mm-hmm. terre bi ñëw na dévier sañuy canal terre bi bi mu ñëwee ñoom bi ñu defaree seen terre ba pare au lieu ñu defaral ñu ay tali yi nga xamante ne moo nekkoon si yoon bi fa lañ daan indi seen oto yi nga xamante ne mooy gros porteurs yi daan indi seen matériels yi mm-hmm. dara yàq nañ sañuy tali xam nga désordre dëkk ñun daal TER bi daal lu dul coono ñu ko. maanaam gisoo leen si benn avantage. amul benn ba fi mu toll nii amul coppite. boobaa ak léegi amul benn coppite. impact yi amul gouvernement bi taxawaay bu mu am. par rapport duñu fa fa sax jaar bay wax ak ñun. ñun daal si naqar la ñuy yeewoo moom la ñuy fanaanoo parce que nee nañ euh, pratiquement euh, askan waa Tëngéej ak luñ am dañ koy def si paas. waaw waaw. waaw parce que parce que mooy yoon yi ma lay wax. Mhm. parce que bu fekkee da nga jël benn benn trois kilomètres. Mhm. utoo fa ay yoon. léegi yow bu fekkee da nga war a daw fi nga fi nga dëkk cinq minutes léegi il faut nga daw ko ay trente minutes. Mhm. looloo tax léegi lépp loo yor da nga koy. dépense accessibilité bi seen dara dootu fa dem. parce que bis yi nga daan gis. ay mhm. soixante trois soixante deux ñu daan dugg ay Arafat léegi mënatuñ fa dugg nangootuñu dugg a Tëngéej. Mhm. donc normalement problème sécurité insécurité tamit dina fa am. torop torop torop comme bu demee nan agression yeeg ñoom seen. waaw parce que dafa am ay ay ay secteurs yoo xamante ne lamp yi doyul. dafa am ay secteurs yoo xamante ne nit ñi ñeme ñu fa parce que tali bu baaxul taxi yi duñu fa jaar tànk rek moo la fay yóbbu. Mhm. parce que borom oto yi tey yow bu fekkoon da nga dëkk Rufisque nga jënd oto bu bees tax. oto bi mhm. mën naa ne doo am cinq minutes mu yàqu. Mhm. parce que ay fausse perte moo am tëngeej amul benn tali boo xamante ne mën nga fa jaar tëngeej mu baax. Mhm. amul mais mais mais comme euh, dommage yi nga xamante ni euh, terre bi indil na ko waa waa waa tëngeej euh, amoon na ay manifestation yu ngeen jot amal est-ce que boobu ba léegi état bi ñëw na pour taxaw si si si jafe-jafe yooyu nga xamante ni moom la terre bi teg waa tëngeej. déggoo mën a na depuis 1960 ba léegi Rufisque sentirul état. Hmm. ah bon. non non ñun sentiruñu état même ci terre bi amul benn man mm. damay faral di laaj ndax est-ce que. Mm-hmm. Rufisque ci Sénégal la bokk. ah bon. waaw parce que man manuma juddu. ak Rufisque ak dakaar presque benn la. waaw buntu dakaar mm-hmm. xam nga bu njëkk danga nga daan gis ñu ne euh, dañuy tabaski ci dakaar boo boobu appayage bi amul ñëpp te ngeen dañ daan jaar. Mm-hmm. sur tous les côtés léegi ñu ma dégg ñu ne Macky Sall mu ne.

oto yoo xamante ne bu ñu jaaree risque au lieu que ñu fay 1000 francs yegg léegi yow danga boo jaaree risque da mhm. mhm. yeb benn malade boo xam ne da war a yóbbu hôpital au lieu nga daw doo mën a daw ci tous les routes amul benn yoon boo xamante baax na risque dara dara dara baaxul risque parce que ñun bi ñu bi ñu nekkee Rufisque ba léegi amul dara loo xamante ne changé na Rufisque yaa booy amul dara dara dara loo xamante ne kon moom da nga gis ni président ñàkk a xam moo tax muy wax loolu ñàkk a xam ak mm-hmm. ñàkk a yëg Rufisque man laay gis parce que Macky Sall bu fekkoon ne yëg na Rufisque mm-hmm. ak nit ñu waa Sénégal yëpp di xasee mm-hmm. ñu naan yéen a ko voté loon par ci wala par ça parce que nit ki bu fekkee ne ñun jël nañ li ñu am yëpp jox la ko yaakaar ci yow yow bu fekkee yow toog nga fi mais war nga mën a ñëwaat Rufisque defal ñu dara war nga mën a ñëw ah doon na fa ñëw def ay visite no visite yooyu yooyu yëpp benn mm. tali la. Mm-hmm. tali boo xamante ne moo jóge si APS bi jaar asalem dem ba ville. Mm. moom Macky la moom buy ñëw moom talim boobu nga xamante ne moo jaar foofu. Mm. dinañ ko parfum même buñ si mënee defar ay cuuraay sax dinañ ko fa def <laughs> bu demaatee lijjanteetuñu ko franchement. Mm-hmm. waaw. jeex na waaw léegi tey ji yow looy wax maire bu Rufisque. non maire moom. Mm-hmm. ñun li ñuy wax Macky moom lañ koy wax. parce que ñun dañu yaakaar si ñoom. sañuy papa lañ sañuy kilifa lañ ñun amuñu kenn ku ñu kuñ dul tiitaloo ku dul doomu Rufisque mm-hmm. waaw ñun dañ leen di oo si combat bi nu ñu mën a jàppalee ak nu mu manti gaawee gaawee gaawee ñu jàppalee ko ñu jàppale ñu ko. parce mais mais moom boo ko doon noté loo koy noté parce que ak. Euh, jafe-jafe yi maanaam liggéeyu daal Rufisque ko zéro moom amul kenn ku fa liggéey loo xam ne maire ba def fa dara. defuñu fa dara ñoom ñëpp franchement quoi. muy nguur gi. muy nguur gi maire bi autorité yi dara. doomu tëngéej yi nga xam ni euh, ñu ngi si guvernement bi. dara parti yeex ñëpp dara. Rufisque kay amul dara lu fa def loo xamante ne amul nañu njëriñ ñun population bi wax fa dëgg yàlla buñ ñu ko defoon ñu wax ko. Mhm. Uh-huh. Euh, fan yi ngeen lancé benn euh, pétition est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci pétition bi naka la ñëwee lan ngeen ci bëgg exactement. waaw parce que ñun bi ñu jógee. dañu dem si ay kilifa yoo xamante ne mooy suñu kilifa. ñun hmm. tëngeej dañu am yar. parce que ñëpp nee nañ tëngeej ñoom ñëpp dañu dañu dañu gaaw a mer te bu ñu meree dañu kenn du leen mënu leen dalal. Hmm. mais ñun ñu xool ne depuis tout ce temps dëkk bi yëpp moo ngi yëngatu. tëngeej ñu toog. Hmm. yaru toog di xaar rek. mais nag bi ñu demee xaar ba xaar ba ne li ñuy xaar nag dafa ëpp. ñun ñu ne dañuy jóg bu ñu jógee ñu ànd seex sañuy rakk ànd seex sañuy yaay. ànd ak sañuy papa sur tous les côtés Rufisque ñu booloo pour combat combat bi mu jeex fi mais pétition bi laa wax lu tax ngeen lancé ko waaw pour gars yi signé ko ñaata signature ngeen soxla si pétition bi mhm. Mhm. Ah, ñun pétition bi ñun ah, xam nañ ne lépp lu ñu si bëgg rek dinañ ko parce que Rufisque yëpp instant bi hmm. ñu toll nii ñoo ngi signé parce que yéen dangeen ngeen di xeex occupation anarchique de la voie publique publique waaw Mm. maanaam ñi nga xamante ni euh, ñu ngi lal fu leen neex jaay mm-hmm. ah euh, fu la neex teg cantine ainsi de suite garage fu la neex def garage fu la neex def garage mécanicien maanaam daal mbedd mi mbeddum buur la ñu yàqu ko carrément ba euh, dëkk pour parce que instant bi sax pour ñu taaral Dakar c'est ça le problème occupation anarchique moo tax Dakar mënul taaru non boo ne Dakar sax dafay xaw a ma gis nga boo xoolee Tëngéej daal boo ko bëggee xool dëgg-dëgg si Sénégal. da nga mm-hmm. xoolee Mbëbës daal man loolu laa la mën a wax. Mbëbës Mbëbës waaw ni ëpp na de Samba Mbëbës moom ni mu mel. Mm-hmm. Tëngéej ak mais mais loolu dégg doon nga dégg président Macky Sall di koy di ko wax di ko xeex dañuy xeex occupation anarchique Abdou Karim Fafana doon si def liggéey bu am solo mais gis nga ni. Euh, mu commencé woon di déguerpir gars yi à un moment ñu daal di koy freiner pour yow euh, tey jii naka la ñu mën a xeexee occupation anarchique bi. Mhm. waaw occupa anarchique bi. man li ma si gis mooy ñun bi ñu dëkkee Tëngéej gis nañ maire bi jéem si mais bi mu si jéemee. Mm. manoon mu jéemaat manoon. yéen tamit da ngeen koy xeex ba pare tey jii maire bi bu xëyoon ñëw na day dindi jaaykat yi ci mbedd mi borom cantine yi ci mbedd mi ainsi de suite yéenay taxawaat ne encore euh, ñiy daan seen doole ci mbedd mi ñu ngi leen fay fekk di leen di leen néewal doole di leen xañ seen teraanga encore euh, non non loolu du am parce que ñun instant bi ñu ñoo porté suñu combat waa ñun kay maire mooy mais Sénégal souvent noonu la. da ngay xeex ne occupation anarchique euh, gars yi commencé ñëw di déguer piir ngeen taxawaat ne euh, état bi lor nañu. non mais ñun moom dañ si sonn ñun te tëngëj. Hmm. waaw ñun moom dañu doyal si loolu quoi. yéen a ngeen bëgg occupation anarchique bi comme Abdou Karim Fofana li mu doon def. ramasse kees ki yeeg kii yeeg lép mbedd. lépp na jóg tëngëj dàq liggéeykat yi amuñ amuñ lu ñu def. yaa booy mooy li ma la wax rek. gis nga hmm. àdduna. Hmm. dafa am yoon. gis nga rajo bi nga toog nii ñuy mm-hmm. waxtaan mm-hmm. lu tax defee ñu ko fee si biti mm-hmm. parce que soxla ñu biri moo tax élève bii di jàng dafa soxla nekk si classe boo xamante du dégg ay bruit yoo xamante ne da koy perturbé yow bi tëdd si hôpital bi war na nekk si hôpital bi tëdd ak xel mu dal mais da ngay tëdd di dégg ali ay loo xamante ne kenn du dégg jorga jorga dangu dangu ay malade si buntu hôpital yoo xamante ne ay sareetu fas dañ fay taxaw lu nekk daal moo am risque neexul kenn neexul kenn. loolu ngeen taxaw pour xeex ko. mais dama ne maanaam tey ji yow sàmba euh, lan ngay suggérer maanaam lan ngay xelal maire bi euh, lan ngay xelal état pour mën a euh, xeex li nga xamante ni mooy occupation anarchique pour mu jeex Tëngéej wala jeex ci Sénégal yëpp rek. Mm-hmm. maire bi moom li ma ko siy xelal mooy. Mm-hmm. maire boo nekkee si dëgg. Mm-hmm. il faut ngay ñëw si population bi. il faut ngay ñëw di déglu population bi. il faut ngay àndax population bi lu si lu ñu bëgg. mais bu fekkee ne ñun dañuy am ay maire yoo xamante ne mën nañ toog ay quatre ans du ñu gis sañuy maire mën nañ toog ay cinq ans duñ leen dégg ñu def conférence de presse mën nañ toog dix ans doo leen dégg ñu wax problème wu Tëngéej mhm. mais loolu noonu c'est un problème maire boobu noonu du moom ngay dem yaakaar si moom mu defaral la sa sa dëkk parce que bu fekkoon ne maire yëpp ñoom tey dañuy nekk nekkaat seen population di nekk seen biir gox ñu ñu leen di jege ba bu leen soxlaa bëgg leen dem wax problème bi bëgg leen jàppale wax leen ni ñuy def ba loolu dañ si dëkk bi duñ ko mën a am parce que duñ leen gis parce que ibbilu ñu ay buntu loolu moo indi problème Sénégal. Hmm. waaw Macky Sall tamit. moom mais Abdou Karim Fofana mi ngi doon xeex di liggéey si affaire occupation anarchique gars yi jóg di kaas. mais mais moom kon yegsewul Tëngéej. Mhm. waaw yegsewul Tëngéej. non mais bëggoon nga mu yegsi Tëngéej. non Tëngéej kay ñun bëgg nañ ñu. jàppale mais mais xam nga Samba problème bi muy pose souvent mooy. Mhm. Euh, dañu nekk si dëkk boo xam ne amul liggéey. Mhm. Euh, souvent jeunes yi dañuy ñëw lal si mbedd mi di jaay pour am lu ñu yóbbu seen kër wala ñu ñëw defar seen benn que teg fa seen marchandise ci mbedd mi parce que amuñ espace. parfois amuñ njëgu cantine pour marché ainsi de suite donc ci mbedd mi la ñuy lal foofu la ñuy def seen i cantine ñii di jaay restaurant pour am fa astuur loo xam dinañ ko yóbbu seen kër mais boo nee yow euh, da ngeen def pétition pour euh, xeex occupation anarchique donc occupation anarchique boo koy xeex kon ñooñu ñëpp jaaykat yeeg restauratrice yeeg ñu yor seen magasin maanaam dañuy ramasser seeni kees ñoom ñu dem chômage dootuñ am fu ñu daanee doole mais yéen lan ngeen di proposer tey jii ñooñ bu ñu leen fa jëlee naka la ñuy def parce que duñ amati fu fu ñuy daanee seen doole ñoom. àdduna ñun ñi ngay gis. Mm-hmm. tey bu ñu sañoon dañuy daan sañu doole mais amuñu sax lu ñu fu ñu daanee sañu doole. Mm-hmm. mais terewul tamit daan doole da ngay jox dëkk bi cër. xam nga luy mm-hmm. lan mooy dëkk bi cër. marché dafa am ay place yoo xamante ne fa la nit ñi di jaayee. dafa am ay cantines yoo xamante ne moom la ñu ubbil jeunesse bi pour ñu fay jaay. mais bu ñu demee ba cantine yooyu yëpp jeex. mais dañ leen war a uti ji feneen yóbbu leen fa. mais du si tali bu mag bi. wala du si ay APH yow da gis si APH bi ay promotion ñu fay jaay loolu du yoon. Mhm. du sécurité. Mhm. tali bi nit ñi di jaar yow da ngay génn marché génn jour national boo xefee ñu mbëkk la. Mhm. parce que. boo jaaykat yi fu ne. non c' est extraordinaire ba si route nationale bi dañ fay toog di jaay bañu ñu jeunesse bi jaay ñun jeunesse bi la ñu am. bu ñu sañoon ñoom dañuy liggéey. mais liggéey dafa am fu mu yem. ndimbal dafa am fu mu yem. Sénégal ñun lenn moo ñu yàq bàyyi leen jeunesse bi dañuy liggéey. lu ñu am lu ñu yóbbu seen kër. yaa ngi dégg. Mhm. léegi yow tey même police bi nga xamante ne moo nekk si dëkk bi bu génnoon waroon def intervention du am fu mu jaar. Mhm. même ñi nga xamante ne ñooy euh, nekk si hôpital yi nekk Rufisque. Mhm. bu ñu génnoon war jël jël malaat du ñu am fu ñu jaar. même musée yi nga xamante ne ñoo war a dem jàngale seen i élèves yi tey pour nga dugg école euh, Abdoulaye Sadji da ngay laal ay carotte pour dugg a jaay pour dugg a jàng. da ngay dugg di jàng di dégg maire bi li muy jaay si biti. kon daal gis nga ni gars ñoo war a adapté utal ay marché nit yi fu ñu dem lal. loolu mais yow wax nga ko di espace amatul si dëkk bi. espace amatul si dëkk bi mais Rufisque dañ fa dañ fa créé woon ay marché. Mhm. ñoom dañ fa defoon ay inauguration ay marché. Mhm. mais marché yooyu bi ñu ko inauguré ba léegi wax ñu ko Youssou Ndour sax mas na fa ñëw ba waye mhm. ba mu wayee ba léegi si la sax marché bi si la ko jëgg xam ne sax li am si marché ba benn brique sax teguñu ko fa. franchement Euh, naka gisee temps yi coowal découpage administratif bi am changement yi am ñu war a jëlee jaxaay ci Rufisque yóbbu ko Kër Massar yow loo ko loo si xalaat. waaw ah, mooy mhm. mooy mooy li ma lay wax rek xam nga ñun dañu ñëwee benn genre kàddu boo xamante ne mooy kàddu tëngeej mhm. li nga xamante ne moo ñu ñor mooy situation Rufisque la fa nekk la fa nekk bu fekkoon ne découpage bi sax xaw nañu laal wala mu déranger ñu bu boobaa ñun dinañ si yegg. mën ngeen si xeex. waaw dans l'avenir bu ngeen xoolee gis ne affaire bi du leen arranger mën ngeen jóg wax ci. yow xeex ci Rufisque instant bi ñu toll nii dafa taxaw temm. Mhm. ñun suñu suñu suñu kuréel bi ñu taxawal nii. Mhm. dañ si taxaw temm ak détermination bu doy amul mhm. luñ siy ragal. amul luñ siy teggi tànk. tëngeet si kanam rek wala ñun ñu. xam la ne na ñuy def rek mais Tëngéej moom dina avancer par ci wala par ça. Mhm. leen di fàttali yéen ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle euh, tey jii ndey Comba Moreau dalal euh, kile di Samba Diop euh, nekk porte parole bu collectif kaddu Tëngéej ci ngeen war a amal marche marche pacifique ni gi ni 23 mai bu 15 heures jotee marche bi naka lay demee lan moo ko wundu Euh, naka ngeen koy defee exactement. waaw marche bi li ko ëmb mooy li ma doon la wax sànq rek. parce que problème wu Rufisque bu fekkee dañ la koy wax. kon mhm. tabaski lañ fiy jógee. Mhm. parce que yaa booy naa la ko waxaat tey. Mhm. parce que Rufisque ñu lu ñu dal dafa metti Rufisque du amul lu nit kuy dund am. Rufisque amul ay tali yu baax amul benn tali bu baax. Rufisque amul ay canalisation Rufisque amul hôpital bu baax. Rufisque amul dara loo xamante ne. baax na lu fa nekk jamono ñu ni nii moom. Mhm. ñu wax la ko mu. léegi marche bi kañ ngeen koy amal. le 23 mai. Mhm. à quinze h ah. 15h ñan ngeen di woo ci ci marche bi. ñoo i oo waa Rufisque yëpp. Mhm. di oo autorité yëpp. di oo ñëpp daal képp ku dëkk Rufisque daal ñoo ngi lay oo si marche bi. képp ku képp koo xamante ne. Rufisque nu mu mel nii neexu la ñoo ngi lay oo si marche bi. fan ngeen di commencé marche fan ngeen koy jeexalee. ñoo ngi koy commencé euh, Pont Gabin. Mhm. ba rond point Asalem. Mhm. Mm, fa la ñuy yi nga xamante ni Rufisque mu ngi koy jànkoonteel est-ce que euh, souvent doon ngeen dem euh, ci activistes yi pour ñu jàppale leen ci xeex bi comme Y'en a marre waa ñoom Guy Marius Sagna ainsi de suite. non ñun. soxlawuñu ko soxlawu leen lool soxlawuñu ko ñu jàppale ñoom ñoo daal ñu soxla ñun dañ daan dem ba ay Dakar di foofu ñun bu ñu bëggee. Mhm. xeexal sañu bopp. ñun kese mën nañ koo xeexal sañu bopp kay. incha allah lu tax. waaw parce que ñun. mbooloo mooy doole mën nañu ñëw jàppale leen ci xeex bi. ñun Rufisque sañu mbooloo moo ëpp doole mbooloo ñoom Guy Marius Sagna yooyu ngay dégg ak ah, yooyu ngay dégg yëpp. waaw ñooñu ngay dégg ñëpp seen mbooloo seen mbooloo mais Rufisque dafay nelaw te buñ ko ñun bu ñu jógee Macky Sall sax mënuñu téye ñaanuñu ko yàlla nag bu ñu sañoon ñu ñu si lu ñuy wax mais bés bu ñu jógee Macky Sall sax du ñu téye. Mhm. waaw mais mais mais yéen à bi lan mooy seen seen plan d' action. waaw plan daction bi mooy maanaam ñun li ñu dese dafa bari bari na trop parce que ñun defuñu marche bi rek arrêté léegi ñun dañu bëgg a jël Rufisque en main bëgg nañ tey Rufisque ki nga xamante ne moo fiy toog maire ëllëg ñu jug toog di ko càmbar xool kal la xool fa la dëkk ndax doomu Rufisque la ñu jël ko jokk suñu dëkk waaw naka gisee le fait que politiciens yi Sénégal bu ñuy euh, bu ñuy campagne dañuy ñëw di dikk askan wi mais une fois ñu daal di leen tabb dañuy fàtte askan woowule parce que euh, li nga fi lim yëpp day wane ni euh, politiciens yi dañoo wan gannaaw tëngeej te tey ji bu élection yi ñëwoon yaakaar naa ni danañ défilé bu baax foofu lee ca tëngeej ban gis-gis nga ci am loolu mooy ñàkk gore rek am nga nit da ngay gore mhm. wala nga ñàkk bañ a gore parce que yow bu fekkee ne da ngay dox amoo dara si àdduna nga ñëw si nit ñi wax ñoom dig leen ñoo jël suñu confiance ñun confiance rek la ñu am. Mhm. duñ la topp di la wër di laaj yaay kan wala wala kii mooy sa yaay wala kële mooy dañuy am si yow confiance ñu jël suñu carte ñu jox la di la seetaan. Mhm. bu ñu demee nag ba gis ne kii mënuñ jëmale kanam ñu ñëpp ñooy jógandoo da nga fiy jógee kenn duñu tee waaw ba pare bu weesoo loolu. Mm-hmm. mais bu ñëwee jox leen ay ay ay mille francs ki cinq mille ak yu tuuti ak ñoom seen ngeen voté leen. ñun loolu teewuñu. dañ koy wax su ñu leen joxee ngeen jël. non dama dama man dañu il faut ñu waxtaan ci kàddu boobu ñuy wax. Mm-hmm. loolu ça n'existe pas amul Rufisque. lan amul Rufisque. ay affaire de mille francs wala ay cinq cent. ak élection ñu joxe ay cinq mille cinq mille. joxe ay tissu ngeen feesal meeting yi dem voté. non non ñun meeting ñun. defee ñu lu tax nga ne Rufisque bokku ci. Rufisque boo gisee yow mas nga toog dégg ñu Rufisque ñoo ngi marché di taal ay pënaax loolu masul am xamul tax. Mhm. ñun dañu dañu judd rek di liggéey dañu judd gis géej dañu gis di doon ay maçon dañu judd doon ay soudeur mu am ay métiers yoo xamante ne tubaab benk fi def dañ ko jàng looloo tax ñu am fullu toog bàyyi ak suñu maire may leen ay temps mais bu ñu demee ba may leen temps ba sonn dañuy jóg. dañuy jóg dañuy wax ak ñoom. non mais dama ne. Mhm. Samba li ngay wax ak li may wax du benn. Mhm. élection jub Euh, politiciens yi di campagne euh, ñenn ñi sax pour su ñuy def meeting dañuy ñi nekk ci meeting bi yëpp pratiquement dañ leen di fay pour ñu feesal meeting bi. Mhm. Euh, jox leen ay tissus séddale leen ay mille francs comment dirais-je ay deux mille ak cinq mille. Mhm. parfois sax jour élection vote am na ñoo xam ne dañ naan la votel ma boo génnee indi sama kii ma ma ma jox la cinq mille francs nga ne loolu tëngeej bokku ci. waaw ah, man achat de conscience yi. loolu nga wax am na si politique. waaw mais ku xamul moo koy def. mais am na Tëngéej. waaw am na fépp ci Sénégal mais bul ne Tëngéej bokk ci mais am na fépp ci Sénégal. waaw mais ñun suñu mouvement doxew ñu noonu. Hmm. un deuxièmement te képp kuy politique ñu lay fay xaalis ngay voter nit ndax xaalis boo mu la jox yaa ngi si erreur. ndax la parce que ëllëg yaay dugg si réseaux sociaux yi di ñaan ndimbal. ëllëg sa yaay mooy soxla opération nga dem si réseaux sociaux bi di ñaan ndimbal parce que bu fekkee ne politique da ko def ngoor rek pour xool sa dëkk avancement am doo dem di. encaisser ay xaalis pour sa intérêt wala pour sama intérêt benn jour. Mhm. man politique yooyu ma noonu. wax nga léegi euh, da ngeen juddu rek gis géej gi euh, ñu bëgg la laaj si Barça wala Barsàq bi jeunes yi nga xamante ni pratiquement dañoo désespéré euh, jël gaal yi pour dem Europe ban xalaat nga ci am est-ce que doomu Rufisque yu bari dem nañ wala demuñ. noo doomu Rufisque yu bari dem nañ. dem nañ te boo xefee bu bu fekkee ne nii lay continuer dañuy dem. kon ba léegi ñu ngi dem. non ba déggatuma ku dem. Mhm. mais bu fekkee ne dëkk bi nii la nar a continuer mhm. dañuy dem ñun dañuy dem kay dañuy dem di dem rek. ak ak ak risques yi si nekk. non risques yi lu si mënta nekk di moo ëpp risque. yaa pour a déglu mhm. bëgg naa la ci laaj. gis nga gis projet ñuy wax nii. dafa bëri ay façon yoo xamante ne jeunesse bi yëpp dinañ si gis gis seen bopp. gox bi dina si gis seen bopp. man dafa am ay projet yoo xamante ne dama koy faral di wax ma leen pour pourquoi pas mënuñu def ay projet ta tali parce que jeunesse bi la plupart ñëpp ay maçon nañ. Mhm, expliquer waaw. Mhm. yow da ngay gis comme tali karo ka moolu karo bi soudeur moo koy defar. Mhm. mais bu ko soudeur defaree pare da koy def da teg nga jël maçon moom mooy fabriquer mool bi yaa ngi dégg. après ñoom bu ñu ko fabriqué loolu mooy nekk carreau mu nekk benn pièce loolu kon maçon yi nekk Rufisque yëpp mën nañ ko defar ah léegi maçon yi koy defar. Mhm. jeunesse bi comme ñun. Mhm. ñi nga xamante ne amuñu xëy. Mhm. mën nañ si nekk manœuvre. yaa ngi dégg léegi ñun buñ si nekkee loolu léegi comme par exemple xamante ne ñoo nekk yëpp bu si jeunesse si Rufisque àndee liggéey muy maçon yi. maçon yi defar tali carreau yi maçon yi ñooy defar tali. jeunesse bi ñooy nekk. Euh, nuñ koy waxtee sax euh, manœuvre yi. Mhm. bu boobaa kon jeunesse bi ñu si bëri dinañ jàpp. dinañ am si luñ jàpp. dinañ am ñaari avancement dëkk bi dina dox jeunesse bi dinañ dox. dëkk bi dina dox. Mhm. dina am changé tali yi mhm. dinañ baax parce que jeunesse bi mën nañ defar ay canalisation parce que canalisation maçon yi maçon yi ñoo koy defar. entreprise yu mag yi ngay gis nii yëpp dañuy ñëw mais après sénégalais la ñuy mujjee jël ñuy liggéeyaat loolu. moo tax la moo tax ñu defal ay tali karo. mais nee nañ euh, problème mu liggéey bi li tax mu am euh, ndaw yi fii par exemple liggéey bari duñ ko nangoo def au Sénégal te euh, ñi ngi xataraay ne dañuy dem Europe dugg si gaali mais li ñuy bañ a def Sénégal moom la ñuy def Europe. wala lu ko raw sax. mais yow est-ce que gis nga ndaw Sénégal yi ñuy liggéey. Hmm. man damay dugg si canalisation. waaw man. Hmm. damay dugg si canalisation ci biir canalisation yi. damay dugg si canalisation. si Kambaaw fii bu ñu koy defar sama nijaay dafa amoon benn euh, société boo xamante ne ci canalisation rek lañuy liggéey. Mm-hmm. dama daan dugg canalisation si suuf. man mm-hmm. naa daw dix mètres génnee fële. si ab carré bu ndaw boo xamante ne rek lay dem rien que pour am lu mu bëgg am lu mu am loo yóbbu ci kër yóbbu sama kon gis nga ni gars yi liñ naan euh, ndaw yi li ñuy bañ a def Sénégal moom lañuy def Europe gis nga ni loolu c'est faux non dañ ko gisul dañ gisul liggéey bu ñu jox parce que buñ ko gisoon dañuy liggéey franchement képp kuy fanaan si mbedd di nekk si kaw route di jaay di oto yi di la fiir ngay dee terewul ñoo ngi jaay ba léegi. Mhm. ñooñu boo leen utalee liggéey ñu liggéey. Mhm. est-ce que mais Barça Barça bi est-ce que pour yow solution la. non solution la parce bi ngay jël yëpp euh, maanaam bu fekkee par exemple cent personnes ñoo dem boo moytu quatre-vingts yëpp si géej gi la ñuy des. waaw mais yow yaa ngi toog vingt ñooy yegg. mais yow yaa ngi toog Sénégal di dee mieux vaut nga dem dee moo gën. ah bon. ah mais Sénégal boo fi toogee tamit moo dee wayam parce que yow liggéeyoo. Mhm. mënoo génn am tali yu baax. Mhm. mënoo génn am ay canalisation yu baax. Mhm. mënoo génn am si dara loo jàpp mais mieux vaut nga dem dee si géej gi. moo gën a nappkat yëpp tamit nee nañ dem nañ. non loo si xalaat te nappkat yi boo Rufisque nappkat yi dem nañ wala demuñ. parce que boo gisee Rufisque nappkat yi di dem parce que dañu bëgg jaay suñu géej gi suñu géej gi ñoom ñoom ñoo ko yàq. état bi mm. dafa yàq suñu géej waaw mais parce que boo ñëwee Rufisque boo daan fa ñëw dafa am benn genre société boo daan dégg ñu en capas kapaas danaan jaay galaas mhm. kapaas sañu yaay yi daan dëkk si dëkk bi yëpp fa lañ daan dem toog ku si nekk di ut sa mhm. mhm. moo nekk si booru géej gi sañu yaay yi fa lañ daan nekk di jaay ay jën ñu gis ay jeunesse bu bëri dañ daan dem kapaas di fa jaay ay jën ñii di jaay galaas moo yi bu ñu daan jógee géej fa lañ daan ñëw di denc see jën yi mais léegi ñu toog jékki-jékki gis kapaas yaaxu na tëj nañ ko léegi boo fa demee da ngay bëgg a daw kee bi boo fa demee dafa salté amul dara loo xamante ne am na Rufisque loo xamante ne mën nañu apporter dara Rufisque ñaata société ñoo fa nekk dafa bari mais la moo tax Rufisque mënul avancer Kër Lo ay ay ñoo fa am ay garabu mango mais Kër Lo boo fa demee instant bi ñu toll en cent pour cent foo jaar am na ay tali foo jaar am na ay canalisation mais Rufisque am na ay société bu nekk société bu nekk am na Rufisque mm. am na ay Sococim Valda Cap de Bis taxul Rufisque avancer kon gis nga ni daal dem Barça dee ci géej gi ak Sénégal ñoo yem. parce que ñi fi nekk dee nañ ba pare. man moom dee ci géej gi moo ma gënal toog Sénégal bu fekkee nii lañ ko nar a. xanaa yow da ngaa dem. ah ma gisee lu bu man moom bu ma gisee gaal moom damay dem. yaay du ma téye papa du ma téye. Ah, Samba li ngay wax est-ce que xalaat nga ko. bu baax a baax parce que tekki rek am lu ma dimbalee sama yaay moo ma tax a jóg. mais nag bu fekkee Sénégal fii lañ ko bëgg toog. ba ba dee doo dara non dañ dul ko am sax parce que bu fekkee projet yi ngay dégg dégg dégg noonu rek projet nii la rek da dul yegg sax suñun dañ koy dégg rek. mën nañ fa dem koy dégg di ko seetaan ci télé yi rek. foofu foofu dañ koy dégg rek yàlla mi ngi tiim xam na ne ñu njariñ franchement. léegi fan yi nga gis ni sax. Euh, ak fipp yu fi amoon gis nga li xewoon ci réew mi euh, euh, président jóg ne dafay jàppale ndaw yi defoon conseil présidentiel pour xool naka la ñuy jàppale ndaw yi ñu am xëy di wax affaire financement yow ban ban jàng nga ci am est-ce que financement bi yegsi na ci ndawum tëngee ji est-ce que waa DER financé nañ leen est-ce que yéen am ngeen financement pour mën a teg seen projet bopp. ñan ñan am nañ financement. bu yéen ndaw tëngee. non ñun waa kàddu tëngee am ngeen. ñun moom yëguñu ko sax gisuñu ko sax bëgg yi dégg. Ah, DER temps yi mooy bës ak financement ak xaalis ba yi. njiitu réew mi dee waxal dee rek bu si boole bi R bi sax. R bi ñun sax dee sax dañ ko gisul bay gis DER franchement quoi. ndax lan est-ce que jël ngeen ay projet yóbbu DER est def ngeen ay démarches tamit parce que mënoo sa kër rek DER fekk la fa financé la. non projet yooyu ñëpp yaay booy ñëpp ñoo koy dégg. Mhm. ñun ñu xëy dem uti ci journal yi 1500 moo ñu gënal ñuy dem foo xamante ne Ah, ñëpp xam nañ mais mais li ngay wax foo ko teg tamit Samba expliquer mais soxna si projet yi dañ koy politiquer boo bokkul APR duñ la dimbali. mais foo ko teg fan nga teg ni ku bokkul APR duñ la financé moo am moo am parce que ñëpp ñoo ngi koy wax foo ko teg da gis ñu financé waa APR da nga gis ku bokkul APR déposé kenn jëlu ko kenn financé wul projet mu wala non waa kay ñoo ngi leen di jox sax ñoom si projet yi mais ñun ñi nga xamante ne bokkuñu APR ñun ñi nga xamante ne ay doofari doomu Rufisque lañ ay bayfaalu Rufisque ay dof Rufisque te rek tax ñu jóg billaay walaay gisuñu benn projet gisuñu benn financement ñoo ngi dem si biir nag. Mm. mais buñ fa demee même lu ñuy wax sax dalul sañu xel quoi. wax fa mais Ahmed est-ce que yéen defal monte ngeen seeni projet yóbbu fa. maanaam tey yow Samba nga toog am na man am na projet. jënd quelque moto cak-cak comme par exemple nekk na loo xam ne actuellement sa marche ak vente en ligne bi par exemple exemple lay joxe man am naa projet dama bëggoon monter sa projet jënd euh, cinq cak-cak comme ça ñu may dawal chaque mois euh, chaque jour ñu ñu ñu verser ma temps ah. xam nga euh, fin de mois bi dinaa am temps de bénéfice ma mën a ñëw fay DER mën a garder sama bénéfice ainsi de suite est-ce que daal di monter sa projet dem yóbbul ko DER ñu xool ko xam ni lii c'est un projet ñu buñ la mënee financer ñu financer la suñ ko mënul nga xam ne est-ce que yéen jéem ngeen def loolu est-ce que jeune jeune su tàngee jéem nañ def loolu. yaa booy man dama gis ne avant ngay dimbali nit. waa si ay projet mhm. dangay ngay dimbali nit si ni muy dundee ba pare. naka mais si naka. yow nit bu amul hôpital bu baax. boo mm-hmm. xamante ne ñun bu ñu tawatee dinañ dem hôpital ñu faj ñu. Mm-hmm. nit bu amul tali boo xamante ne war na fa mën a génn dawal sa oto dem. Mm-hmm. wala amuñu ay canalisation mais tey bu ñu ñëwee duñu tegal. projet bu bu bu tawee ndox mi fees. bu tawee waaw fo plus fausse perte yi plus fausse perte yi. yooyu fu leen neex la ñuy taxaw. suñu xale yi dañuy feebar chaque instant buñ leen yóbbu suñu hôpital yi dañ leen évacuer. parce que Rufisque hôpital yi nga fay dégg sax matériel yi sax yow bu ñu fa yóbboon doo fa fajo mhm. waaw. donc gis nga ni ay deer ay ay affaire u naxante loolu yëpp ay affaire de naxante la du pour Rufisque bokk mooy li ma la waxoon sànq. Mhm. dafa mel ni Rufisque bokkul si Sénégal. man moom loolu laa jàpp quoi. Mhm. parce que depuis 1960 ba léegi ba léegi 1960 ba léegi déggoon. mi nga xamante ne moo ñëwoon Sénégal. Hmm. boo ko yeewoon tey tey <laughs> dalay jaaral di ko wan la yoon yëpp yàlla xam ne loolu. doy na waar léegi euh, am beneen euh, acte boo xam ne yéen a ngi koy def am benn centre euh, delloo si boo xam da ngeen di taxawu ñi am feebaru xel mën nga ñëwaat ak ñun ci centre boobu parce que temps bi ñu desee bareetul. waaw centre boobu moom nag dama si kontaan trop trop trop trop. parce que hmm. centre bi man maa ngi si biir mais sama copain moom moo géré affaire bi. Mm-hmm. mais centre bi euh, moom moom moo si gën a sonn quoi parce que. naka la ñëwee idée bi waaw ba taxawal. centre idée bi mooy maanaam comme sañu kàddu Tëngéej bii ni nga ko gisee rek ñun yërmande dañu am ñun suñu projet yëpp dañ ko def dañ ko jël jamono jën tool nii tekk si Rufisque tekk si doomu Rufisque tekk si ay problème mu Rufisque loolooy sañu projet pour l'instant. bon bu mu gisee. ñu am feebaru xel. bu mu gisee loolu kii partout si mbedd Ndakaaru yi. moom bu mu ko moom bu gisee loolu. Mm-hmm. fi mu koy yóbbu sax man parfois daf may jooyloo mhm. moom bu ñoo mu ñun bu ñu demee ba yegg foofu ñooñu bu ñu ñëwee si moom dangay ngay da ngay da ngay jommi mhm. lu mu leen wax dañ koy def ñooñu instant bi ñu toon nii dañ ko jàppee comme papa ñooñu lépp lu ñuy lekk du maire bi moo lañ koy jox du autorité moom mooy dem këram jabaram moo koy togg ak sañu benn copain bu tudde bu Mouhamed Fall ñoom ñooy togg seen togg di leen ko jox mhm. te ñooñu dañuy dëkk si tëngéej doon ay doomu tëngéej am feebaru xel am feebaru xel seen famille bedd leen seen waaw seen famille bàyyi leen. état seetaan leen. état seetaan leen léegi bu mu dem ba ay doomu ñoo xamante ne amuñu sax xëy. Mhm. jël seen responsabilité yor leen dugal leen si kër di leen jox lekk di leen jox reer. mais fan fan ngeen jëlee local bu ngeen dugal euh, ñu am feebaru waaw local boobu nag euh, ñun bu ñu amee ku ñu si jàppale préfet bu Rufisque moo ñu si. jàppale bi moo leen jàppale. waaw moo ñu si jàppale si li si ëpp daal. préfet mm. moo ñu si jàppale. pour ngeen am local bi. am local léegi naka lay demee souvent da ngeen di fekk malaat euh, malade bi si mbedd mi jël ko su ngeen ko àndee ci ci ci centre bi naka ngeen koy assister. waaw exactement naka mm. lay demee assistance boobu. comme te ñun tey bu ñu ñëwee fekk la si mbedd bi nga am noo toogee dañ lay jàppee comme sañu rakk. Mm-hmm. dañuy yóbbu si centre bi. Mm-hmm. dinañ la sang am na ay mataay yu bari yoo xamante ne ñoo ngi fa. Mm-hmm. dinañ la wat moom da siy jël temps. wat la ba nga set sang la dañ lay wat ba nga set. sang la jékki jaaro yi nga takkoon. da nga koy gis moom mu génn ànd ak ñoom doxaax ñoom ville. stade bu fekkee dafa am ay final. da nga koy gis moom ñu invité ko mu ànd ak ñoom dem ba foofu toog seetaan muy loo xamante ne. ñun ñëpp dañ siy compter même sànq tey ay 6 heures. ba si 6 heures. ñoo ngi def benn ndogu. en ma gis si ay ñaar ñoo xamante ne ñoom dañoo am feebaru xol mais daf leen invité woon ñu ñëw toog si wet bi. Mhm. mais après yow sa dafay daw quoi nga xam ne ñii tey ndimbal kese lañu bëgg quoi. Mhm. waaw mais aussi tamit ndimbal boobu yegg sewul ñan ñan ñooy nekk ci centre bi di liggéey di taxawu ñu am feebaru. waaw ah, instant bi ñu toll nii bu ñu fay ñëw ñoo ngi fa bàyyi Maguette benn waaye bu ñu naan Maguette Diop. Mhm. waaw Maguette moom moo fa nekk instant bi ñu toll nii comme bu ñu génnee nekk beneen activité moom moo fay nekk di leen sang. Mhm. moo leen di defaral ndékki moo leen di surveiller képp ku si bëgg génn moo lay gunge boo bëggee dem fi nga dem moo lay ñëwaat indil la. delloo si mais est-ce que tamit nekkul euh, risque boo xamante ni euh, jël ngeen ko euh, parce que ku am feebaru xel c'est vrai nga nekk ak moom tu exposé naka ngeen di dundee ak loolu. problème insécurité du posé wu. non parce que yow bu fekkoon ku am feebaru xel rek ñu daw la kon ñëpp kon instant bi ñu toll nii dëkk bi dina demee neneen. Mhm. àdduna ñaar moo am. yàlla daf lay def nga am santé bu baax. mu yàlla dem mu def kii amul sant bu baax yow tey man bu ma amoon sama yaay mu feebar feebar xel nag dama koy daw dama koy génn kër gi bàyyi ko fa. ah non non. foog nga taxaw foog nga taxaw ko. looloo tax ñun tamit ñu jàppee leen comme sañu rakk rek ak ñoo xamante ne comme ñoo bokk deret xooluñu si benn intérêt mais nag dafa am loo xamante ne bu ko ay jeunes yi def dëkk si koñ état moo war a ñëw. jàpp si est-ce que état mi ngi leen di jàppale parce que acte bu noble ngeen di def. non jàppale moom amu fa moom franchement. du koppar du dara du appui du parfois ñu may leen ay yére wala dara pour ngeen jox ko mm, malade mentaux yi. non non non non. musul am lépp seeni koppar daal. waaw Ahmed daal mooy def débrouille bi mooy def lépp. ba fi ñu toll nii. Mm-hmm. est-ce que mën mës ngeen mën ngeen mës ngeen si dem waaye si Ansoumana Dione parce que moom tamit euh, loolu lay kaas maanaam ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel Ansoumana Dione moo leen di kaasal tout le temps au Sénégal est-ce que dem ngeen approché wu ba mu xam liggéey bi ngeen di def si côté mm, boobu. non non non kooku xamuñu ko sax. xamoo leen ko non ñun moom dañ koy def te yàlla rek tax kii moom da ko def amour quoi da ko bëgg. Mhm. en plus aussi tamit yàlla moo ngi siy dimbali parce que nit bu fekkee da ngay def dara ak xol. Mhm. yàlla rek moo la siy dimbali quoi. mais am na ku ngeen jëlee si mbedd mi toppatoo ko ci ci centre bi euh, ba mu wér delluwaat kër. Mhm. am ngeen ci ay exemple am nañ si waaw am nañ si koo xamante ne moom wér na ba delluwaat seen kër. ngeen toppatoo ko ba mu wér. ba mu wér ba delluwaat seen kër parce que ñoom ñooñu noonu bu ñu après boo tanee ñu indiwaat la. Mm-hmm. muñ nag bu ñu demee nag ba gis na yow mii nag man nga demal sa demaat seen kër. Mm. ñoom seen yaay seen yaay sax fay ñëw. di leen ñëw di leen seet si. buñ fay ñëw dañuy wax ba dañuy dañuy ñaanal ba dañuy jooy. seen yaay ñoo ngi dund ñoo ngi foofu mais mënuñu leen téye. Mm-hmm. waaw mais ñun mën nañ leen téye parce que ñoom lépp lu ñu bëgg rek. dañ leen yéen lan moo tax ngeen mën leen téye te seen i waajur mënuñ leen téye parce ay jeunes lañ ñun ay jeunes lañ mën nañ daw am nañ doole mën nañ leen jàpp am nañ yërmande ñoom li ñu bëgg yëpp ñun dañ koy xam mais ñoom seen yaay du ñu gis ne chaque jour toogal te ñoom du ñu mën a toog ku am feebaru xel mënoo toog da ngay génn rek dem rek ngay gis te tali bu wóorul oto yi mën nañ fi génn parfois nga dégg na fii gars yi ñoo ngi leen di rey xalaatuñu leen di jëntiwuñu leen mais bu fekkoon ne ñun ñëpp dañu jàpp ne képp ku sa yaram neexul rek dañ la war a bàyyi si mbedd bi ñoom ñëpp si tali bi la ñuy deewee temps bi jeex nañu kon mu nekk euh, lu noobu loo xamante ni yéen a ngi koy def xam naa peut-être dinañ si amal beneen waxtaan euh, ñu bàyyi la Samba waxtu bi jeex na. Mhm. peut-être euh, looy tàggatoo ak auditeurs yi appel bu nga bëgg a lancer. li may tàggatoo mooy maanaam ñoo ngi au population Rufisque yëpp si combat bi ñuy def pour affaire pour Rufisque jëm kanam. Mm-hmm. ñoo ngi si oo sañu papa yi di si oo sañu yaay di si oo sañu ndey ji ji di si oo képp ku dëkk Rufisque rek ñoo ngi lay oo si combat bi parce que ñun suñu intérêt mooy benn intérêt mooy Rufisque jëm kanam. Mm-hmm. bëgg nañ Rufisque tey mu am ay canalisation yu baax bëgg nañ Rufisque tey. mu mm-hmm. am ay hôpital yu baax bëgg nañ Rufisque tey mu am ay tali yu baax. bëgg nañ Rufisque mu am lépp loo xamante ne dëkk yi moo ngi am. waaw ñun loolu moo ñu tax a jóg. te combat boobu nag amul luñ siy teggi tànk. fas yéene dem ba dañuy dem ba jéggi tali kay mhm. liñ si góobi rek dañ koy gara incha allah mi ngi noonu ñu ngi koy remercier bu baax a kilee di Samba Diop nekk porte parole ah, bu collectif ah, kaddu Tëngéej ah, di remercier Ahmed Daf mi nga xamante ni moom la àndal bokk ci kuréel googule di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 à 11 di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci côté technique bi mën ngeen suivraat émission bi ci suñu site internet Informé euh, point com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah ci beneen émission euh, beneen thème ak beneen invité.